aywa eh, Ibrahima Lissa Faye moom tekkiwut masque benn yoon séeréer moom dafa mel ne mi ngi ci xeexu mbas mi ba léegi. moo gën a wóor <laughs> moo gën a wóor. Aïcha Chérif ma niñ ko waxee rek moom mooy sunu invité tey ci info du matin. waaw waaw ñuy waxtaanee nag euh, wàllu régulation euh, site d'information yi démb nag njiitu réewum président Macky Sall daf ko évoqué ci conseil de ministres doon sàkku sax ci ministre de la communication ak tamit euh, waa CNRA ñu gën a renforcer sensibilisation ndax dañoo jàpp ni kon. Euh, dem na rek euh, ba di fi indi ay ay jafe-jafe rawatina rek jikko yi ni mu koy xëy yéen waa appel loolu yàgg naa nekk seen xeex ngir ñu la mais diggante boobu ak léegi bëgg nañoo xam bi ngeen defee comme ñu ngi doon wax statistique ñaata site d'information ñu am Sénégal. waaw ah, ëpp nañu 300 euh, de di dem mënu kenn mënul wax chiffre bi nii lii la. lan moo tax wax chiffre bi lii parce que amul recensement bu war a mën a permettre ñu ne kat lii mooy nombre de sites. en ligne yi nga xam ci ne def information au Sénégal. lan mooy site bi nga xam ne dañ koy considérer surtout Sénégal la cest bu juddoo fii la wala ka nekk bitim réew créé site sax di bind ci Sénégal. Euh, déjà difficulté boobu bu bu juddoo fii la. wala mu nekk à nekk bitim réew nekk à destination du Sénégal c'est ça en fait soit day juddoo fii wala mu nekk bitim réew viser Sénégal. Mhm. soit ci noora domaine bi wala ci continuer bi. loolu rek lay mën a doon. Mhm. voilà léegi suñu sukkandikoo ci euh, euh, conseil des ministres démb bi li président de la république wax que ni régulation dafa war a am ci euh, millier bi pour cohésion sociale yow loolu nan nga ko jàngatee parce que quand suñu site d'information ñu bari dañuy jàpp ni loolu sérieux la mais suñu demee bay gis naan ay sites yoo xamee ni dañuy dérégler cohésion sociale là y a problème. ah waaw mais li président wax je pense que. dafa jot mu wax que ndaxte yàgg na bi ñuy alerter. ki gën dégguñu. et ñun au niveau de appel gisoon nañu mbir mi di ñëw depuis bu yàgg et nañ sant yàlla boobu ba léegi nii dara amul. et vraiment si jotu fii andi fii jiixi jaax boo xam ne dina caxa salfaañi réew mi. ndaxte fi mu nekk nii presque Sénégal mun naa ne un tiers population yi am nañ site. ñu ci amul site ñu néew la. ba tax na ku ci nekk pour nga mën a fël lu ne ngay def lu ne et je pense que quand même c'est un métier très sérieux mm-hmm. et wàllum presse la presse am na ay règles yu ko tënk mm-hmm. au international euh, boo jëlee ay euh, la charte de Munich mm-hmm. jël aussi même les genres journalistiques les et autres ci biir réew mi aussi am aussi yeneen charte aussi yu ko tënk donc kenn mënul jóg nga yeewu rek nga ne da ngay créer sa site def information te fekk maanaam yow xamoo sax li mbir mi euh, euh, li li li ko sos. wala boog naka la war a demee. ak li ko tënk. mais mais lan moo tax rek gars yi ñëw euh, Ablaye nga baal moo tax rek ñu ñëw am fit dugg ci ci ci presse en ligne bi comme ni nga ko waxee ku nekk fële fu ne surtout site d'information et puis maintenant pratiquement koo wax mu ne la journaliste la donc euh, la situation est assez compliquée. xam nga lan moo tax mbir mi aksi fii. li tax mbir mi aksi fii. Mhm. lépp koppar la économique. Mhm. d'ailleurs benn bi moyen d'influence wala chantage. ñaareel bi pour am ci affaire aide à la presse bi. ñetteel bi am na ci ñoo xam ne nag dañuy ñëw carrément def ko business pour liggéey c'est ça. Mhm. donc ñetti yooyu noonu moo moo ci nekk. léegi ñi nga xam ne ñoom dañuy ñëw pour def chantage dóor ni ñu koy waxee teeg yooyu noonu ñooñu moom mm-hmm. dañuy xëy di wut lu ñu kii yooyu noonu ñi ci des mm-hmm. ñooñu du ñu bind du ñu def dara bu ñu toogee ay deux wala trois mois avant de la presse bi di génn ñu commencé def ay mise à jour cappa-cappal commencé wootee def pression dugg fi génn fii mm-hmm. ñi des nag ñoom yeneen yi sax ñi ngi leen commencé yàqal seen liggéey ndaxte ñoom dañu nekk maanaam entreprise recruter ay nit jënd matériel di doxal di def métier bi correctement léegi nag bu fekk leen fa far xaw leen faagaagal ndaxte métier bi façon bu ne mi ngi ci ba tax na euh, internautes yi dañu sa dañuy pour ràññeeti leen ne maanaam lii site bu baax la wala lii site la ak buzz. Mhm. ba na waar. Mhm. yaa moo tax tout le temps dañ naan yéen journalistes yi. Mhm. tamit euh, dañuy comprendre situation parce que du ñu xam qui est journaliste et qui ne l'est pas. mais man defe naa diagnostic bi dafa des parce que li ñuy bàyyi euh, xëy na problème bi. ni mu nekkee problème Sénégal la nekkee problème feneen la nekkee problème feneen amuñu solution boo xam ne solution miracle tout fet man gëwuma ni am na koo xam ne dafay créer sitam pour toog atum lëmb pour xaar aide à la presse vraiment loolu gëw ma ko gëw ma koo xam ne dafay dafay créer système atum lëmb mu toog di xaar pour aide à la presse boo xam ne nii boo ñu joxee moyen bi dinañ ko xam am nañ cinq cent mille sax am na ci defe naa ni nit du toog pour atum lëmb pour ñu jox ko cinq cent mille quand même mu defi leneen gëw ma loolu moo tax diagnostic boobu dafay faussé deuxièmement defe naa ne ci li nga xam ne nii moo fi nekk ci réglementation lu tax nit mën a créer site loolu xëy na moo des parce que dara terewul nit ki mu def comme ni nga def créer sitam di bind maintenant ci bindin ba am nañu solution quand même réglementation bi fi nekk nit bu bindi lu mu warul bind mais mun nañ ko jaarale yoon def naa ni am nañu solution mais yooyu lañ bëgg a bàyyi teg ci leneen nañ def attention nag ci dérive réglementation parce que aussi mën na dériver ba ci dem ci reter mooy méthode yoo xamante nii xam nañ ko ci àdduna bi quoi dañ ciy profité pour xëy na tëj robinet bi mm-hmm. xañ ñoo xam ne sax seen droit lañ nekk pour le droit à l'information du public wàññi waale leen loolu nañ ci def attention quand même euh, li nga wax noonu d'accord naa ci ak yow c'est-à-dire dañu war a réguler réglementer mais aussi waruñu censurer ça il faut lévité et on va se battre contre ça mais li am ba am euh, Ablaye li ma la wax nii man lu ma leer la man xam naa ay sites yoo xam ci ne maanaam trois mois la ñuy fonctionner wala 2 mois la ñuy fonctionner ki koy administrer day def leneen bu xamee ne kii bi mu ngi am na ay connexion ak yooyu noonu bu ñu waaye ñëw mu tàllaat si itam dafa ci lu mu ciy def. c'est pas interdit non non non c'est pas interdit mais mais ba léegi ñun bi ñu gisee maanaam parce que ñun bi ñuy créé appel. il y avait 14 sites au Sénégal c'était en 2011 14 sites. Mm-hmm. entre 2011. ak élection kii bi il y a eu presque plus de 40. 43 mm-hmm. sites. Mm-hmm. entre 2011 et février 2012. donc une inflation boobu ba léegi nii. muy gën a yokk cest mun naa la wax point par point. affaire bi nu mu demee séquentiellement. bu ñun bi ñu gisee loolu moo tax ñun en 2014 ñu def benn genre atelier. pour renforcer li nga xam ne moo nekk ci code bi ci wàllu presse en ligne parce que c'était trop euh, kii euh, euh, c'était pas trop consistant. Mm -hmm. et vraiment euh, bi député yi ñoom ñëpp ñu ñëw. ñu càmbar waxtaan xool. def benn charte boo xam te ne mooy pour les journalistes la presse en ligne. pour rek. wàññi dérive yi fexe ba nga xam te ne dañu kii kii parce que aussi euh, boo gisee musiba muy ñëw. ci li fi nekk ci réglementation lan mooy tere nit mu créer site pour def loolu noonu. non maanaam réglementation c'est un cadre boo xam te ne képp ku créer site da nga ci ñëw dugg c'est ça. Mm-hmm. et le cadre c'est quoi pour nga créer site il faut créer une entreprise aux normes de OHADA. Mm-hmm. benn registre commerce nii na yaa e déclaré wu impôt. dem euh, inspection du travail dem dans les institutions sociales c'est ça beneen bi nga recruter trois journalistes dont un directeur de publication qui a sept ans d'expérience qui a dix ans d'expérience un rédacteur en chef qui a sept ans d'expérience et un reporter au minimum c'est-à-dire au minimum c'est le code qui le dit au minimum loolu da nga ko war am c'est et puis aussi que l'administrateur ou le directeur de publication ou en tout cas le responsable du site et disons le comment dirais-je est responsable direct en tout cas du contenu du site et même des commentaires ainsi de suite et loolu noonu doyul parce que en fait loolu ça concerne le cahier de charge. la mise en place mais loolu nag tey soo ko doon quantifier ban ko fi am si ñi fi nekk. non mais avant loolu non avant parce que quand même ci kii bi gis nañ euh, président de la République ci mu tudd euh, organe de régulation mais lan moo ci responsabilité état boobu mooy autorité yi parce que code de la presse bi ba léegi yéen ngi xaar même ñu wax. décret d' yi depuis combien de euh, ñu ngi voté woon affaire. 3 ans ah 3 ans parce que avant législature ba di dem lan ko voté woon ba léegi donc est ce que lu tax ñuy xaar ba heure bi di julliwaat d' application perte parce que moom mënul yor moyens yi pour def réglementation boo pare di wax maanaam kuréel yi nañu nañu réglementer. Hmm. parce que boobu ba léegi nii bon y pas une volonté de réglementer le secteur c'est ça la réalité. Hmm. parce que boo jëlee ministère CNRA moom gaa jamono ji ñuy wax ni amul moyen juridique. Hmm. ak légal pour mën a réglementer secteur bi parce que CNRA ñu ko créé ay 2006. et boobu noonu presque en ligne demeegul woon noonu donc ARCA moo am possibilité pour réglementer presse en ligne. en moo war a remplacer CNRA. moo war et donc boobu ba léegi nii waxuñu daal ci ARCA ARCA ça fait partie des textes d' application c' est à dire loi yi nga xam te ne. moo la war a voter pour mu mottali code de la presse. comme également aussi y' a un autre décret lié aux avantages et obligation des entreprises de presse. et boobu noonu sax moo gën a mottali code de la presse bi ba tax na maanaam booy créer entreprise de presse pour nga mën a bénéficier wu ci avantages yi. il faut que nga maanaam nga satisfaire à certaines obligations xam nga et xam nga loolu damay wax affaire texte d'application yi mais avant même texte d'application yi am na ay dispositions yoo xam ne mu ngi ci code bi qui sont applicables instant yi may wax ak yow et qui ne pas appliquées mais loolu dañ ko laaj ministère ñu laaj ko état bi parce que boo xoolee bi ñuy distribuer de la presse daaw mais ministère mënoon na ne man am na possibilité tënku ci ci code bi daal di jël code bi ne lii la yan sit ñoo ko loolu pour man li président wax nii ministère bu fekkente ne bëgg na liggéey dëgg dëgg dëgg li mu njëkk a def mooy woo ñu ñu toog ñu waxtaan ñu xool ban délai li ñuy may ñi nga xam ci ne nekkuñu en règle pour ñu euh, mais euh, Cheikh fi fi mu euh, taxaw noonu rek balaa mu fay génn parce que aide à la presse boobu nga wax ni mooy enjeu bi souvent yéen yére ngooy ci ni bu ñu publier bénéficiaires yi xëy na autorité bi décider di joxe aide à la presse léegi joxe yaa ma neex la nañ ci d'accord am na ñoo xamante comme site yooyu. mais bu fekkoon ni dañ koy teg ci penc bi ñëpp xam kan la ñu jox autorité xëy na dina mu contrainte boo xam ne. naa naa saa waay ma laa jox rek ci xaritoo wala ci. parce que bindal nga ma benn article mais Ablaye musuñu ne. musuñu wax ne buñ publier ki bi. d'ailleurs daaw nii. Mm, amoon na fi mm. jafe-jafe bu metti mm. entre ñun patronat de presse. ak ministère bi ci affaire publication boobu noonu. parce que mu ne moom amul leen lu ko tënk. non mu ne amul leen lu ko tënk pour mu publier. donc amul obligation pour publier du publier. mais c'est une question de transparence mais ñun suñu kii moo nekkoon pour ñu publier ñu xam.

après demande ko public mais attends on doit say membre ñëw sama bureau mhm. ne ma li ngay wax engagé wu leen loolu kay lu fi te da ko wax publiquement non ala kulli aali ñëpp am unanimité amul fen mhm. bu dix bëggee ñu publier dina am deux yoo xam ne bëgguñu publier c'est clair c'est clair mais quand même ministre bi pour mën a setal boppam. et surtout pour mën a wane preuve de. de bonne gouvernance et surtout de kii moo waroon publier. jël mm-hmm. initiative publier. Mm-hmm. c'est ça et puis aussi teg ay chartes yu leer parce que pour man jamono jii nii ñu mën a jël aide rek jox ko n'importe ki mm-hmm. war na mën a am au moins ay chartes yu ñu teg. ñëpp d'accord ci waxtaanee ko ba d'accord ci. mën ko doog ko mën a jox. voilà euh, li suñu dellu see ci euh, sorti euh, chef de l'État bi je pense que e est-ce que quelque part. boolewu ci réseaux sociaux yi parce que xam nga dañuy wax presse en ligne dérive yi c'est vrai que am na ci presse en ligne bi mais ci réseaux sociaux yi la ëppee parce que léegi da ngay gis ñuy ñëw ay koo xamee ni dafa doon jaay cuuraay fële ñëw créer yu YouTube di ci di ci wax lu ko neex mais suy jàll nit ñi naan journaliste bi. non journaliste bi tamit topp yi mais tamit xam nga euh, consommateurs yi mënoo leen mere ci benn wàll mm. parce que ñooñu ils se présentent en tant que journaliste donc bërëb bi gàllas aussi dafa bëri ci ñi ko langue gi daf ci bëri euh, moo tax nag ah suñu ay naataango bu commission carte nationale de presse bu commencé dox mm-hmm. foofu moom dañ fi profité lijjanti lu bëri mm-hmm. ndaxte képp ku jógati ñëw ne journaliste la jor sa micro dem naa ngay interview nit mm-hmm. bu ñu la kiiwee dañ lay porter plainte pour usurpation de fonction. Mm-hmm. mais xanaa mais mais xanaa fàtte woon yi ñooñu liggéey bi ñuy def soxlawuñu fenn dem présenter fa carte de presse. ñoom information bi ñuy <laughs> lijjanti dañuy diffuser <laughs> dem séminaire soxlawuñu dem feneen. cest li ci penc mi la ñuy lijjante loolu kenn du leen laaj seen carte de presse. d'accord mais xam am na loo xam ci ne ah. Mm-hmm. Euh, en euh, dañ ko réglementé. Mm-hmm. ARCA moom mooy lijjanti lépp loo xam ci ne web TV la wala IPTV. rajo yi télévision yi yooyu noonu c'est-à-dire arca dafa am doole ju mag joo xam te ne. ñooñu ngay wax noonu ñooñu da leen di taxawal benn cahier de charge. ñu tënku ci mënoo ci tënku am na possibilité mu bind. FAI yi lien bu dootul actif bind aussi Google wala Dailymotion lien bu dootul actif. Mm-hmm. parce que aussi on est on dans un cas dans dans dans un état. qui un cadre organisé. Mm-hmm. et également aussi ses procédures pour pouvoir réglementer un secteur. Mm-hmm. et aujourd'hui muy code bi di code pénal muy code la presse di code pénal bi mhm. même arca dañuy am possibilité fekkente ni maanaam jox nañ la injonction jox la mise en demeure jox la euh, rappel à l'ordre yëpp kii woo dañuy bind juge bi y a procédure à et cette procédure là parce que en fait aussi ñu ñëw jékki-jékki tëj si wala tëj organ te amul procédure mënta ne c'est pas possible mm-hmm. et le CNRA actuellement nii n'a pas le pouvoir mm-hmm. ni de ki li mu mën mooy waxtaan mm-hmm. en attendant arcade di ñëw et donc bu ñu suivre procédure bi kat yow nga euh, obtempéré woo ngay récidiver mais dañu lay tëj ak loo mën dañ koy tëj carrément dañ koy fermer mais léegi li ñu doon wax léegi ku bëgg buzz da ngay ñëw toog dem woo sa benn xarit mu filmer la nga toog sa salon wax lu la neex euh, insanité bu la neex nga publier ko mm. mais lu ci doy waar mooy comme li Ablaye wax ay site yu nga xamee ni se disent euh, sérieux ñoo koy jël relayer ko waaw waaw non xam nga loolu aussi dafa am faille ci euh, processus de régula de de de régulation bi mm. parce que en fait contenu yi ngay gis ak yenn émission yi ngay gis pour man mm. bu doon organe de régulation doon na def rôle am comme ni mu waree. Mhm. organe d' autorégulation yi def rôle am comme ni mu waree. Mhm. am na yenn contenu yoo xamante ne bu ñu ko gisati. dëgg la de. c'est-à-dire benn Samba Boye bu jógee fële def benn vidéo am wax ci lu ko neex def lu ko neex. Mhm. benn site wala benn télé wala benn rajo du ko ñemee reprendre. parce que day ne lii moo ko reprendre. la ma koy fekk CNRA kii ARCA dina ma blacklisté di wala mu kii andi mu jafe-jafe. ma baal terme loo xam ne. dafa sax rusa toog yow ci sa rukk di ko xool waxuma laa nga def ko ci mbedd mi et puis euh, yi dañ koy jël di ko partagé. et ñi ko def da gis ne lii sax après dañuy mujjee am benn buzz boo xam ne ils sont au devant de la scène c'est une façon boo xam ne ci la ñuy kii et dañuy sa réclame ci ci métier bi. dérive yi ñaari exemple yu gàtt rek ci seetaan bi ni mu baree. ay saaga moom sa saaga dafay am ci plateau télé. Mm-hmm. nga gis kër ga ca boppam. loolu lay def ci youtube am c'est-à-dire pour nit ñi mën ko ñi ko raté wala direct bi mën nañ comprendre mu rëcc mais loolu la ñuy dagg dugal ko ci youtube nga gis site yi dem def ay interview comme séquence yi fi jàll laa bu yàggul mm-hmm. interview boo xam ne c'est pas en direct mm-hmm. c'est enregistré mm-hmm. nga décider génnee ko parce que xam nga ni boo ko génnee loolu mooy buzz bi comme ni koy waxee xam nga dem def émission enregistré nga xam ni lii baaxul jagul nga bañ koo teg loolu dafay am. Mhm. mais nga décider ni loolu ngay teg loolu mooy problème bi te loolu amaguñ ci pexe. Mhm. fi mu ñuy indi xaw ndax dañu génn ci suñu même net mais xoolal mën nga ko lii ak problème fréquence yi. Mhm. joxe nañu joxe joxe joxe ba xamatuñu ñan la ñu jox. ñu ngi woote fi mu toll nii di wax nii ñi ña yor fréquence te defuñ ci dara mhm. maanaam am na ñoo xam dañu bokkoon seen fréquence di xaar bés bu jekk ñu jaay voilà ñi di ko loué am na ñuy loué sax fréquence mhm. nga bëgg yow am sa projet boo xam mën ngaa dem tey mhm. dem gis nit mu loué la fréquence wala mu abal la wala mu mu jaay la fii ku wax lii wax la ca des <laughs> waaw am na préoccupation daaw de Diouf suñu naataango moom it mooy ba léegi ci désordre bi ne mais ku koo xamante ni day créer si sitam moom <laughs> du ko laaj dafa dafa yónnee laaj te laaj bu am solo la mooy li nga wax ni pardon bu ñu respecté code bi euh, directeur de publication ba ak équipe ba ak yooyu mais da nga gis benn journaliste mooy créé si am moom mooy def lépp et puis di utiliser ay yeneen tour pour jëfandikoo li nga xamante ni kon moom mooy euh, information bi euh, mais mais xam nga normalement état bi dafa war a laajte maanaam yow sa équipe mm-hmm. bu dee da bi bind da nga bind ay tur yooyu même même correct am na possibilité mu laaj la ñii ñan lañu nga jox leen seen i CV diplôme jox ko contrat. parce que loolu moom inspection du travail la contrat boo xam te ne visé par l' du travail. Mm. c' ça en fait parce que aussi bu ñu nee recruter un journaliste directeur de publication qui a dix ans d' un reporter en fait un directeur en chef qui a dix ans en fait sept ans d' un directeur de publication qui a dix ans d' et un reporter. mais loolu noonu yëpp il faut que maanaam mu am cursus bu ko justifier bu ko lu firndeel et aujourd'hui il y a la commission de la carte nationale de presse qui permettra de réglementer cela parce que en fait boo ñëwee nga déposer kat dinañ xam ne kii kii la commencé at année bii la commencé fii la jot a jaar ak yooyu noonu ainsi de suite. Hmm, xam nga lu la liggéey daaw de mille la donc xam nga hmm. maanaam maanaam maanaam maanaam bu ñu dee kuréel yëpp dox na correctement. nit tam mu ngi bëgg mel ni Joe Biden de jëlagul fonction ba léegi. non non non dina jël fonction dina liggéey liggéey li wóor ba wóor mooy que ne maanaam structure bu nekk. Mhm. am na lu mu war a liggéey mottali li morom ba. mais loolu yi bu doxul état bi deful dara pour mu dox mhm. du dem et juste rek euh, fi nga doon waxee léegi nii amalgame bi am entre euh, réseaux sociaux yi ak presse en ligne mm-hmm. loolu sax dañ ci xalaat ñun ba proposer li ñuy wax labellisation de la presse en ligne labellisation mooy maanaam dañuy certifier sites yi mm-hmm. pour certifier leen maanaam dafa am ay quotient par rapport ak contenu bi par rapport ak même euh, reprise yi par rapport ak ergonomie beeg yëpp mm-hmm. c'est-à-dire loolu yëpp dañ ci liggéey ba teg et aujourd'hui boo demee article cent dernier alinéa bu cent article cent soixante dix sept code de la presse. Mhm. fex nañ aussi bu dugal ko fa. Mhm. et loolu noonu. di boobale ñu ngi wax ak ministère bi di wax ak partenaire pour ñu jàppale ñu ñu mettre ko en place. Mhm. mais c'est un problème. Ibrahima man de vraiment yéene bi rafet na mais daf mel ni <laughs> bokkuñu Sénégal bi ñuy waxee. damay dellu si waat ci problème bu fréquence yi. xam nga rajo yi. commercial bi ak rajo. thématique ba mm-hmm. Mm-hmm. communautaire bi mm-hmm. ku ne am na loolu tënk mais kenn wàccewu ci li nga xam ne nii moom lañ la teg dëgg la ba fréquence ba bu ñu la ko joxee à vie la réew yu sérieux yi fréquence ak lu rajo ba rëy rëy rëy rëy rëy dañ koy jox ci diir mu demande waat ko au bout de cinq ans boo demee France boo demee feneen même boo nekkee premier rajo sa fréquence da nga koy redemandé waat au bout de la concession mën na doon trois ans mën na doon cinq ans li tax ñu koy def boo koy demandé dañuy xool ndax yow wàccoo nga cahier de charge ba nga xam ne moom lañ la ko joxee woon mhm. bu dee rajo communautaire la comme waroo def publicité boo ca xuusee da nga xalaat ni dans trois ans bu may demandé waat fréquence du ma mën a def mhm. rapport d'activité ak rapport financier bi may mhm. présenté nga xam ni kon doo ci dox mais fi bu ñu la joxee avis la mu sa doom sax mën na ko donu nga jox ko keneen jox ko te loolu loolu moom lañ war a njëkk a lijjanti mais Ablaye wax mbir mi sànq. mais xam bi nga def jàngat sànq bi nga def jàngat. Mhm. yaa ngi wax problème mu Sonacos mais problème mu Sonacos boobu noonu moo maasale yu fépp. fii maanaam entreprise publique financée par l' agent public dafa war di def ay rapport d' étape. Mhm. ñu di ko càmbar di xool ba xam maanaam mission yi mi ngi koy doxale comme ni mu waree déet et bu ko deful sanction tegu. mais fii Sénégal tout est déréglé parce que masla bi en même temps aussi parce que je suis je suis du parti au pouvoir wala je suis euh, frère du ministre wala je suis gendre du ministre je fais ce que je veux dara duma ci fekk et malheureusement tey jii nii bu doon ci woon ne maanaam CNRA doxaloon woon noonu parce que même sax boo joxe caution am na en même temps rap kii bi euh, cahier de charge bi ak convention bi nga signé convention moo la jox maanaam durée bi mhm. Euh, condition d'exploitation bi yooyu noonu yëpp. Mhm. cahier de charge bi ñëw ci affaire programme bi. mais fii sax am na fi ñoo mooy li wolof naan lu waay lay ni dara am loxo parce que fii kilifa yi aussi même site kilifa yi ñoo xam leen di entretenir moom leen wala ku leen attaqué nga am ku la fayul wala nangam donc bu fekkee ne dem na ba situation bi kenn mënu ko maîtriser je pense que bokk ñu génne leen wax na créateur de contenu parce que am na yoo xamante ni échappé na sax site d'information mooy chaîne YouTube yi am na ñoo xamante ni mosuñoo laala journalisme mais am nañ seen i chaîne YouTube yor seen caméra di filmer fu nekk fu événement nekk ñi ngi fa te loolu aussi. xam nga mooy jur xam nga Chérif journaliste dañoo weex donc ba bu fi dara amoon tey jii dañu ne journaliste journaliste fekk na ñun. sax ñooy gën a pousser état bi pour ñu appliquer texte yi que état bi ci boppam mi nga xam ne moo ko war a def. tey jii ni bu dara amoon yàlla ñaanuñu ko yàlla parce que ñu ñëpp dëkk bi lañ bokk vraiment di fi yeewoo di fi def lépp. dañu ne la fekk na ñoom li def ak chaîne de responsabilité yëpp a faillir et donc si les chaînes de responsabilité ne fonctionnent pas mais donc y a le désordre partout et donc il va y avoir des boucs émissaires mais les véritables euh, coupables ou les véritables responsables ne seront jamais punis et loolu moo xew Sénégal Sénégal ndumbalaan la lu neex waaye def lu neex waaye wax ça dépend en tout cas ci fi nga bokk. attendre trois ah. mais loolu dafa ñaaw dafa doy waar quand même. en plus bon euh, euh, moom mi fi nekk day jiite site te il faut le dire. ñu mu koy doxalee ni ñu koy suivre gis nañ ci wàllu professionnalisme quand même parce que yaa ngi sa site ba pare en même temps. Euh, di ko partager ci réseaux sociaux yi voilà mais c'est dañoo am lu ñu nemmeeku léegi xam nga Sénégal temps ay terme waxi dof daf fi génn. Mhm. mais ngay gis ay sites yoo xam ne ni dañuy jël waxi dof yooyu di ko euh, def tiitre mhm. pour ñu cliquer seen papier démb rek ci ma jël lire benn site benn mu publier benn information bi je suis peur ci kaw mais imaginez loolu. <laughs> imaginez ay xale di lire loolu dañuy dem ba jàpp ni lii moo normal. mooy responsabilité parce que gisoon nañ euh, kilifa diine sëñ Moustapha Sy bi fi yëkkati ay propos yéen j'ai vu que à l'époque vous avez dit que mm-hmm. euh, la yaa ngi yëngatu quand ci wàllu tasu mm-hmm. xabaar moom j'espère kenn du fi laaj buña am ngeen ah. buña ak plus <laughs> Euh, Lisa euh, waxtu bi dab nañu euh, jot na cadeau Noël kon am ngeen cadeau Noël bu am solo waaw na allo présidence amul Ibrahima Lissa Faye suñu naataangoo nga donc nag maa ngi sayute Cheikh Sànq di ko tooñ parce que comme ni nga ko waxee weex donc am na ci tout le temps li ñuy wax yéen journalistes yi yéen journalistes yi parce que askan bi dem nañ ba ñenn bokk def mënatuñu def différence mhm. amal gaam ak qui est journaliste qui ne l'est pas loolu nag ñun suñu rôle la mhm. pour ñu assainir milieu bi ñu ngi lay sant bu baax di la gërëm aja na gaaw euh, mooy maanaam euh, gis nga euh, président bi mm-hmm. secteur yëpp dañuy dem di ko rencontre lu ci bëri mm-hmm. au moins parfois une ou deux trois fois dans l'année mm-hmm. mais ñun patronat de presse bi depuis président di toogee ba léegi dañuy fexe rencontre que du mën a nekk benn yoon lañ ko rencontre mooy affaire covid 19 bi et pourtant am na joytu yu bëri ñuy wax ni yoo xam ci ne moom moo ko mën a lijjanti absolument et moom mooy maanaam woote lijjanti ko wala mu wax ñu lijjanti ko du sino du sotti merci beaucoup mais vraiment quand même loolu doy na waar trop quoi je pense que rappel bi dina ko jot président internet bi daal faati nañ ko ah. ko fi dégg journal ñu wax affaire flash ka ñun ka liñ ci rek doy na mooy corona <laughs> vraiment <laughs> corona bi c'est compliqué c'est compliqué c'est compliqué vraiment euh, jërëjëf euh, Lissa euh, ñu ngi leen bon courage parce que waaw yo yombul ne ah. yombul yombul métier bi dafa baax na ñu wax ni aussi presse en ligne bi am na ñaari association mais. Mm-hmm. yéen a bokk li ngeen di. ñu bokk li ñuy xeex ci wàllu woowu en tout cas. Ah, ah, voilà ah, c'est important muy noonu c'est important bu ñu defee daaw dañu point sn bi laa bëggoon xam ndax thématique la wala <laughs> généraliste la. <laughs> Daawara Diouf Daawara Diouf. jërëjëf Ablaye joyeux Noël à lundi inchallah avec Adja jërëjëf jërëjëf merci beaucoup euh, Ablaye Cissé ak Adja Assoumben inchallah sera avec grand plaisir plaisir euh, Astou Mbène Thioubou semaine prochaine incha allah moo fi nekk ak toute la team info du matin Chérif Cheikh Tidiane joyeux Noël. waaw ah, a Noël. à la semaine prochaine incha allah. damay bañ jaay kii ñu de waaw rek ñu ne la <laughs> nga fi ñëwaat. waaw jërëjëf <laughs> incha nga ko ci réseaux sociaux yi. gis nga ñi commencé di xarab. Noël ñii duñ ko feete ñun fi vraiment Sénégal ñoo bokk feet yëpp. mais nañu bañ a bàyyi importé yooyu li ngay wax c'est tellement vrai moi moom bi mu nekkee Séné bu nekkee Sénégal du ma raté Noël. Mhm. damay dem seen kër su fi nekkul damay toog nga xam ne kon. vraiment yooyu soxla ñu koy importé quoi nañ ko bàyyee ña euh, nga xam ne. xamuñu ko ñun xam nañu. waaw feete Noël taxul man màggal Yeesu wala mais bi ñu nekkee. Mhm. loolu kenn duñu Sénégal benn bopp la kenn mënu ko ñaar euh, sunu sunu sunu réew mi waaw sunu réew mi ni ñu ko tëggee euh, kenn mun ko yàq ñun ñëpp benn benn benn famille lañu <laughs> euh, jërëjëf joyeux Noël <laughs> def ngeen buuñaa buuñaa plus jël ngeen cadeau de Noël bàyyi leen message ko téléspectateurs yi yeewu leen mu ngi ñëw neuf heures jot na fi ci télévision Futurs Médias ñu amoon mbégte di ñaanalaat encore une fois suñu mbokku chrétiens yi Noël bi nekk Noël bu neex et puis magie de Noël opéré ba mbas mi jóge fii incha allah joyeux Noël ñi Adja sànq na ñuy doon lim kon xam naa ñu boole ci rek Marie Louise ak euh, Maria euh, fële ca euh, l'observateur ak sunu bépp collègue ak sunu benn xarit aussi muy Patrice Sané Chérif ñu koy ah, souhaité grand pat <laughs> joyeux Noël merci de votre fidélité ah, <laughs> ak <laughs> Mame Dombour allez à la semaine prochaine inchallah avec Astou Mbène tout de suite à l'année prochaine pour moi incha allah yal na 2021 ñëw ànd ak jàmm bañ a ni 2020 bi c'est vrai que on a eu de très bonnes nouvelles mais diisoon na trop ci ñun ak euh, coronavirus bi euh, di leen ñaanal borom bi subhaanahu wa taala mu sàmm ñu euh, may ñu un très bon week-end ndax xam ngeen ni suba le 25 décembre Sénégal fépp dañuy feetu ñu leen di ñaanal une très bonne journée merci de votre fidélité tout de suite yeewu leen